Euh, salaamaaleykum mbokk Joal Fadiouth salaamaaleykum waa GFA TV di am contentement bu mag di di leen présenter suñu association bi nga xamante ne de commencé nañ ko euh, il y a quelques années voilà tey nag ñu amoon benn euh, collecte de pulls boo xamante ne dañ ko doon def commencé ko depuis daaw tey mu nekk de ren mu nekk deuxième édition bi ñu ci doon ànd ñun waa groupe bi yëpp wa waa association bi yëpp pour euh, distribuer pull yi nga xamante ne ku nekk xam na ne que dañoo nekk ci période seddaay te mbedd bi dafa métti ak xale yi nga xamante ne dañoo nekk si mbedd bi comme genre talibé et tout voilà voilà léegi nag tey ñu àndoon ñun ñi ñëpp pour distribuer collecte bi euh, kii nekk Bira la je pense que ñu bëri xam nañ ko fi na dëkk Bira Keita euh, Papi Nogay Mbaye Maodo Ousmane Diop Sophie Sow

association bi fii nii si si si Joal mu ñu poser ko ay quelques questions mu mën ñu expliquer mu mën mu mën ñu gën a détailler si si groupe xel bi alors Kader ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Diarra di nuyu Joal Fadiouth yëpp waaye di jiital ci nuyoo bi sama mbokk yi ak sama am di jaam yi sama frère sama sœur yi nga xam ne ñoo bokk association bi mu nekk association boo xamante ne c'est une association sociale bu œuvre juste dans le social et l'association c'est à but non lucratif maanaam lépp li nga xamante ni ci association bi ay fonds wala leneen mu ngi jóge ci participation marché membre bu nekk ci ci ci association bi des fois programme am wala activité am dañuy am doole ñi nga xamante ne aussi ñu ngi ci biti di leen sant aussi ci loolu di leen gërëm parce que comme affaire de dimbalante la parce que le mot help to help ça désigne l'entraide quoi maanaam jaam bi mu dimbale moroomu jaamam bi nga xamante ni day nekk dans le besoin ñun le peu ci loolu lañ ko bëgg a œuvrer di ci oo ñëpp nag parce que c'est pas di que ni yaa ngi ci association bi ou pas mais jëf rawatina jëf te yàlla tax ku nekk bépp nit bu baax mu ngi koy sabab ci àddinaam pour di ko bu ko di ko di ko di ko di ko teewal lii nag benn action la boo xamante ni depuis que ñu euh, créer association bi ñu ngi koy def daaw on l'avait fait avec tous les daara de Joal Fadiouth ren moom lañ doon defaat ni di ñaan yàlla saa su nekk mu ñuy dooleel di ñu kàttanal pour ñu mën ci gën a taxaw mën ci gën a di dimbale suñu mbokku taalibe yi comme niñ ko déggandoo léegi su ma doon laajte lu ma mën a détaillé help to help lan moo andi help to help bi. bon help to help lu ko andi c'est une groupe de jeunes waaw ñu dëkk Joal Fadiouth à la base c'était un groupe d'amitié de partage On discutait matin et soir l'idée est venue là-bas pourquoi pas créer quelque chose pour maintenir. ici à Joal Fadiouth dinañ mun di aider nit ñi nga xamante ni ñoo nekk dans le besoin comme lu mel ni feebar famille yi nga xamante ni des fois seen loxo jotul seen ginnaaw xama lu ci mel ni daara yi di yóbbul taalibe yu dund l'idée est venue là-bas et tous les membres à l'unanimité ont partagé cette idée à savoir pourquoi pas œuvrer dans le social pourquoi pas œuvrer pour Dieu di jëf ci loo xamante ni juste pour dimbale doomu aadama idée bi foofu la jógee depuis boobu tamit Euh, très sincèrement gisun ci ben reccu gisun ci lenn ñëpp ñi ci nekk ñi ci jëf ñi ci def lu ñu mën ñi ci nekk ci biti Joal Fadiouth autorité ñu ci bari sa su ne ñi ci japp mais lepp luñ ciy mënti def rek yalla rek moom mo tax quoi. ok légui tay ji somu doon wax tay seen groupe bi ngi tollu ci ñaata ci ñaata membre ak lan bo leen def bilan bi ngeen commencé euh, bi ngeen commencé ba légui ni ndax gis ngeen si avancement ak bo leen ma defal bilan si si nan la tollu Bon, les membres, nous sommes au nombre de 50 membres. Nous sommes tous les joueurs Alpha Youth parce que nous sommes tous à Dakar, un peu partout dans les régions, dans, euh, ce pays. Nous sommes tous de l'Europe. Nous sommes tous les frères, nous sommes tous les aussi, nous sommes tous les frères. Le groupe, bon, comme nous sommes tous les frères, nous sommes tous lu ñu bokk la di ko jëf di ko doxal objectif yi depuis buñ ko créé moi de ma part personnelle je trouve que c' est quelque chose de positif quoi ci dëkk am nekk ay ndaw am xalaat bu rafet pour di dimbalante parce que dimbal bi pour nit ñi bu ñu ko foog ni li ci biti rek non non ci biir la commencé parce que y a des choses yoo xamante ni tey ji on l'a su créer parce que tey ji da ngay gis benn membre man mii tout récemment en tant que président ci man lañ ko dooree woon parce que ren sama anniversaire tout récemment defal nañ ma ay teraanga yoo xamante c'est entre nous te te te nit amul leneen lu mbokam quoi nit amul leneen aussi lu dul ñi depuis buñ ko créé def nañ fi ay événements def nañ fi ay programmes yo xamanteni très sincèrement c'est quelque chose boo Beaucoup ni bëgguñu sax mu yam foofu mais c'est quelque chose bo xam c'est quelque chose de positif ci dëkk bu melni ni Joal-Fadiouth parce que il y a pas mal de gens qui sont dans le besoin mais qui ne peuvent pas aller chez les gens ou bien rester dans la rue pour demander de l'aide. Mais c'est à nous d'aller vers eux, c'est à nous de les aider, de les épauler pour qu'ils se sentent bien dans la, dans, dans la vie sociale de tous les jours. ok mu mel ni rek commencé pour vous lii mais bi avez fait def du nous te ñu bëri que vous li fait di def da koy sans euh, sans pour autant rien en retour voilà donc tey jii nii bu fekkoon que ni am ngeen autorité yoo xam ne da nga leen bëgg a woo pour ñu ñëw jàppaleen wala bonne volonté yi tey jii ngeen lancer les messages pour ñu ñëw jàppaleen parce que bu leen ne bi quoi qu'on puisse dire bu leen neexoon du du leen ci fekk et tout te di fàttali que jàppale bi ngeen di def aussi nekkul que ni ci mbedd bi rek ngeen mais da ngeen jàppale seen membre ba pare di soog a jàppale ñeneen ñu nekk ci mbedd bi bu ngeen amee message boo leen di lancer pour population Joal Fadiouth yëpp pour ñu ñëw gën leen si jàppale ndax ngeen mën di jàppale ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ko gën a yelloon bon ci niveau boobu comme on l'a toujours fait, hein, on, on appelle solennel à tout un chacun. waxuma autorité waxuma dara mais bépp nit fépp foo munti nekk ci àddina nga gis affaire bi ñu lay wo xam que ni mbir mi du suñu mbir ñun kessé mais yoonu yalla la quoi parce que lepp lu nga xam ne jëf dimbale doomu adama japp na ni du yëfu du yëfu nit kessé quoi mais yalla ngay jëfal quoi d'abord ñi autorité, woo autorités yëpp pour préciser quand tu fais appel aux autorités ça peut sous-entendre de faire de la politique ou je ne sais pas quoi. Non. L'association est apolitique. Tout un chacun peut avoir son appartenance, certes, mais l'association Bibi, c'est uniquement social. C'est uniquement social. Mais comme ce sont les autorités de la commune, on lance un appel pour qu'il viennent en aide dans le domaine social. Dans le domaine social, la population de Joal Fayot on fait appel à tout un chacun, les bonnes volontés, les autorités, les imams, les ustas, tout le monde, les daïres qui sont là, que ce soit Mourid, Tidjan, Khadr, Nyassen. Parce que c'est quelque chose qui est amul appartenance. Parce que si on regarde l'association, il y a des frères et des sœurs catholiques, des même des sœurs et des frères musulmans. C'est quelque chose qui une appartenance religieuse ou sociale ou politique. Non, non on fait appel à tout un chacun pour qu'on puisse œuvrer dans le bien de façon durable dans notre chère commune. D'accord, merci Kader. Je suis lay nuyu Soxna Diarra di nuyu ñëpp tous les membres de HELP ici présents di nuyu aussi GFA TV di Raphaël seen et te di gërëm aussi donc euh, je pense bien que Kader wax na lépp lu lu important loo xamante ne waroon nañ ko wax ci biir HELP di waxal juste que ne HELP c'est une association sociale comme ni ko Kader waxee politique nga xamante ni ñëpp mën nañ ci gis seen bopp muy ndaw muy mag muy musulman muy chrétien muy góor muy jigéen di waxaat juste que ni jawal Fadiouth ñun ñoo ko moom et suñu commune la je pense bien que ni c'est à nous jeunes de se mobiliser di jàppalante di dimbalante voilà pour une cohésion sociale donc euh, help nous mi ngi help ñepp la du help Sanu du help Kader du help donc euh, ñepp ci bokk ñu ngi toute la commune de Jawar Fadiout les bonnes autorités toute la population nous hein, cité damay parce que voilà donc ngi di merci beaucoup. Euh, alors ñu bari dañuy bëgg intégrer biir help. te ñu xam ban yoon la ñuy jaar pour pour dugg fii bu fekkee mën ngeen ñoo indi ku bëgg a bokk xel ku nooy def ak fooy jaar bu mën a intégrer si groupe bi. bon groupe bi nag jafewul intégrer juste que ne soxla nañ tamit kuy ñëw na nga am sa engagement personnel. nga ñëw fekk ci suñu tamit ci li nga xamante ni moom moo ñu tax a jug parce que politique taxu ñoo jug social rek moo ñu tax a jug dimbalante e comme Kader l'a si bien dit aussi groupe bi am na peut-être quelques chartes yu nga xamantene dañ ko fa xawalal parce que li ñuy dimbalee nit ñi ci suñu poche lay jógee mensuellement donc ñu ngi ñaan nit ki aussi kuy ñew rek mu diko soralé xamné voilà help c'est avant tout aussi une famille voilà dañuy nekk comme une famille voilà merci wa comme sank nu moko don souligner que help nekkul ñi kessé amna ño xamantene nekku ñu Sénégal ñu ci diaspora bi te ñu ci japp bu baax baax ku ci melni Chifo borom Japon mom tamit ñu ngi koy nuyu mu ngi ci def dolem de ci def xelam ñuy nuyu aussi Sidi Senghor di ko bu baaxa baax euh Kaba ñu koy nuyu euh, voilà ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax donc di wax aussi ñi nga xamante dañu bëgg ci di ñu dimbale wala ñu xam dañu bëgg intégrer groupe bi ta xamuñ fi ñuy jaar dañuy buñu bëggé dugg dañuy woote ci numéro bi 77 742 11 38 77 742 11 38 ku ci woote inshallah allah di nga am ay renseignements ay informations ci groupe bi Voilà. Bon, pour plus d'éclaircissement concernant l'association, euh, action sociale, je suis Tahawal. Douli, qu'est-ce quoi Mais, taille le Jiva TV. nekk si dëkk bi aussi di accomplir travail boo xamante c'est exceptionnel ñu leen di sant di gërëm au passage lii tey la parce que occasion bi lañ am pour mën exprimer wu afin population bi xam ni affaire bi ñu nekk seen yëf la xam ñun ñëpp ñoo ko bokk quoi mais nekkul ni

d'éclaircissement ci ci ci association bi ni ci wara duggé duggee ni ngay adhérer wala ay bonne volonté yi nga xamante ne amaana sax ñu dugg association bi mais dañu bëgg di jëf ci yoonu yalla numéro bi 77 la 742 11 38 képp ku ci woté wala képp ku ci bind dañ la mëna jox information yi pour nga mëna intégrer intégrer bi nak comme li san wax nekul ni da ngay ñëw rek intégrer pour intégrer dafa am ay benn principe dafa am benn ligne de conduite boo xamante ni ci lañ nekk ñun membre yëpp ci la ñuy dox boo ñëwee loolu rek lañ lay ñaan soo ci munee nekk après facilement dañ lay ajouter parce que yoonu yàlla la kenn du ko utal bunt quoi yoonu yàlla la kenn du ko utal bunt loolu laa ci bëggoon yokk di santaat ñëpp Joal Fadiouth di santaat ñëpp santaat ñi nga xamante ni sax amaana dëkkuñu Joal te defaat da lay gis nga nekk seen nit rek nekk ci affaire bi ñu jàpp ci di santaat sama frères yi sama sœurs yi nga xamante ni ñoo bokk affaire bi muy nice ñi nekk ci kaw bi waa ñoom si Mbay Sidi Lamine Senghor euh, Kaba Jaxate sama gaay yëpp xam nga ñu ngi jàpp si affaire malgré nekkuñu fi muy nice di leen ñaanal ñoom fi ñu nekk yàlla yàlla gën a taxaw gën leen jàppale ñi nekk fii aussi parce que pour nga jëf si yoonu yàlla aussi il faut que wërsëg bi di demee noonu donc dañuy ñaan yàlla ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko bokk ñëpp ñi nga xam ne ñoo ak ñi si bëgg a bokk et ku nekk yàlla def sa poste dara parce que nag nit ki balaa nga koy dimbal da nga koy tanee benn affaire ñëpp ñi si nekk nag ñu gën a redoubler d'effort gën a xam ne mbir mi amul lan lum ñu yaaxal suñu àddina amul lan lum ñu yaaxal jaamu yàlla rek lañ koy jàppee après ça devient simple ça devient facile si ñun ñëpp parce que niñ ko ànd bokkee ku ñuy gis da ngay mun nga yaakaar leneen mais loolu lu yàlla def la si diggante yi ñu koy ñaan yàlla mu doole ko ñu koy ñaan yàlla ànd bi gën a rafet ànd bi gën a sax Joal Fadiouth dem ci kanam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam di ñëwaat rek di avancer ci lo xamanteni amana day diis trop mais adina mo ni demee ce que association biñ ko formé depuis le 6 avril 2020 amoon nañ fi membre bo xamanteni ben membre dynamique dynamique très dynamique man muy suñu mbokk te yalla jëlé ko fi muy deni ñukoy ñaanal au passage fu mu jëm fi mu nekk na le yàlla ko gënal fi yalla réccu lu mu doon nekké ci adina mu nekk lo xamanteni très sincèrement ba ni on arrive à vivre avec mais ba léegi mënuñ ko digérer mais nak comme dund charme bi moy dé parce que dund solo bi mu bu munta am dé moy firndel lool da ngay ñaan yalla mu ñuy fekk ci lu baax mais nek na lo xamanteni tay ji association bi bo suñ la mënee wax événement bi nga xamanteni mo ñu gëna marqué bobu la tay mu nek ndogolu yalla ñukoy nangu di ñaan yalla ñëpp gëna am xolu muñ mais suñu mbokk bobu di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla fi mu féete woon famem yàlla gën ko gën ko fa taxaw gën leen fa may doole parce que nekkoon na koo xamante ni fii ñun ñëpp jàmm la seexaloon nekk nit koo xamante ni xol bi dara new si bu ngeen waxee ñaari ñetti baat reetaan lay njëkk def te seede bi pour mu nekk dëgg il faut ko benn ñaari ñetti nit wala àddina yëpp wax ko te ñëpp seedeel nañ ko loolu te dund àddina sa mbokk ak sa mbokk doomu aadama loolu rek ci am solo rëy amul solo diis amul solo parce que ñun ñëpp benn lañ fa yàllaaw yàlla lu mu am doomu aadama moo ko si gën a gënal kon ku nekk war nga mun a digérer sa morom ngir yàlla gëdd bi yàlla jox doomu aadama mu nekk loo xamante ni vraiment vraiment nekk na lu metti nekk na lu tiis ba ñu si bëri tey ji dañuy dund ak moom rek mais yombul quoi di ko ñaanal bu baax di ñaan yàlla ñëpp ñi nga xamante ni jóge nañ fi yàlla leen yàlla boole xare àjjana ñun ñu fi bàyyi mu tënk ñu si lu baax ba ñu fekki parce que lu mënul ñàkk la ci àddina jaajëf. waaw di fàttaliwaat numéro bi 77 742 11 38 pour ñi nga xamante ne bëgg nañoo bokk ci ci association bi walla ñi nga xamante ne am nañ problème. Euh, rus koo wax fenn wala rus di dem di ñaan et boo ñu contacter si numéro bi rek incha allah dinañ jot si sa problème ba lépp loo xamante ne mën nañ ko ci rek dinañ ko ci def. voilà di remercier waa fa TV gis nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ne yéen a koy def si biir dëkk bi xeeboo leen kenn programme bu nit am bu leen woowee di ngeen ñëw def ci seen doole def ci seen kàttan. ñu ngi leen di remercier bu baax di leen encourager di leen wax que ni yoon bi neexul mais juste ngëm-ngëm la rek àdduna lépp loo gis ci benn la commencé. voilà merci beaucoup di remercier membre xelp yëpp ñu nekk fii ak ñi fi nekkul ak ak képp koo xamante ne jël nga bu dee sa benn pull sax ñun xeebuñu ko def ko si pour affaire yi réussir donc merci beaucoup à la prochaine incha allah. xalaqa samaawaati wal ardi fii sittati ayaamin ñu ngi leen di ziaraat kuréelu def sa yàlla tax. ba firdaws nag bu ñu jóg di fàttali ndax sallallahu alayhi wa moo ne fa sàkkir nañ leen fàttalante lu ñuy fàttali li nga xam ni moo ñu fi indi fii muy liggéey bu rëy ñu war koo liggéey te àdduna buy jeex ñu nekk ñuy jeex ñu war cee liggéey liggéey bu rëy ngir la dem ak moom foo xam ne du jeex muy yow yowmal xeer ay sama mbokk nañu njëkk bàyyi xel dee ndax kat def sa yàlla tax waxoon nañ un million de cadres pour les daara du Sénégal ñu bëgg see toftal maanaam càngaay yi way mooy ñi nga xam ne dañoo génn àdduna am ñoo xam ne dañuy génn àdduna ay sama mbokk duñu am càngaay duñu am xanaa parfum duñu am ku fay ku leen sang du am ku fay tamit maanaam ku gas bàmmeel bi rawatina nag ñu wàcc leen ak kaamilu alxuraan wala jullee bu baax duñ ko am kon nag kuréel jëf sa yàlla tax jugaat takkaat suñu ndiggu ànd ak yéen waa diaspora ànd ak yéen waa biir réew ñun nañ leen jaayante na saabay defoon